gannaaw njiitu réew mi président de la république Macky Sall bi mu jaaree ci Touba dem ci Mbàkke doorab campagne am responsable politique APR bi nga xam ne moom la ñuy wax Khadim jëng te nekkee ca Touba boo xaxatul Moubarak di rafet lu baax ñëw njiitu ak organisation bu am solo bi nga xam ne def nañ ko ci meeting bi mu doon amal ci Mbàkke temps ak yére bi daal baax na wax dëgg yàlla euh, meeting bi tamit réussir nañ ko daal ni ñu ko bëggee woon daal moom gis nañ ko euh, jàllale na message am comme ni mu ko daan defee bu élection ñëwee euh, chaque année fii lay ubbee campagne am fii ci Touba noonu la ko defee ci 2019 bi def na ko ne ñoo daan defee ndax boo xoolee meeting bi passé da daan xaw a guddi waaye bii moom da ko def sax mu teel ngir maanaam li mu bëgg a wax askan wi mën koo dégg bu baax jàllale na message sam wax na euh, programme yi bëgg ci département bi ak ci dëkk bi yëpp loolu lañ doon xaar ci moom daal mobilisation bi mu wax dëgg yàlla ñu ngi félicité bu baax responsable politique yi ak euh, ñi nga xam ne ñooy militants yi mënuñu leen fay. moom nag mu jàpp ne am njiitu réew mii am na ay jéego yoo am solo yoo xam ne def na ko rawatina nag ay projet yoo xam ne amal na ko ci diiru mandat bi nga xam ne jote na ko fay am moom responsable politique APR bi di xam ne ne njiitu mi ku fonk dëkk bu sell bi di Touba ak liggéey yi nga xam ne jot na ko fay amal. waaw dëgg la xam nga nit ku nekk nag ak ni muy xalaate rek doonul ne li mu fi diggee woon def ko loolu jàpp ma ko parce bi moom ñi ngi ci liggéey bi fi mu ne amoon na nag tardement te loolu doonul woon ci moom. ci ñi nga entreprise bi yoroon liggéey bi la loolu moom ñëpp xam nañ waaye nag euh, bu bu weesoo loolu yeneen tali yi mu diggee woon ci biir dëkk bi lu mel ne côté ndindi beeg yooyu yëpp def na ko am na yeneen ak yeneen yu def autoroute Ila Touba bi inauguré na ko yooyu yëpp kon ay lu mu def ba pare la donc leneen li ci des nag li mu leen mën a wax mooy deuxième mandat bi dinaa commencé waat fii jëm na lay dem demaat ci kanam waaye li mu diggee woon moom mënu mën a def lépp ci ëpp def na gannaaw loolee itam ba léegi muy ñaax responsable politique APR yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bu sell bi di Touba wala sax ci réewum Sénégal ngir ñu gën a góorgóorlu takkaat seen ngir liggéey ba njiitu réew mi li nga xam ne moom lay sént ci ñoom ñu daal di koy amal donc li am solo daal mooy li wax ñoom nañ dem liggéey rek loolu daal mooy wax ji ci liggéey daal li nga bëgg di ko am lépp ci liggéeyut nag sa bopp nga koy def ndax président moom kenn mënu koo nax seen la ñuy nax rek li xewoon 2017 mënta xewaat 2019 ndax euh, xamoon na la amoon 2017 li ko waral kon 2019 yaakaar naa dina am beneen taxawaay moom it ak beneen xaar kanam bu muy xoolee Touba te it xam na responsable yi fi nekk kenn ku ci nekk lii sa taxawaay xam na ko ndax boo déggee comme yaa ngi koy wax léegi am na ñoo xam ne tudd leen waaye jàpp ma ne sax da leen a bañ a tudd xëy na ma naam xelam mu dem ci ñoom rek pour mu tudd leen waaye merewu leen waaye timit du rek ñoom nañ gën a góor góorgóorlu daal pour liggéey ndax nax bi dafa bari trop politique dugg ci askan wi wax ak ñoom waxoon na leen ko moom Macky Sall ne leen porte à porte ngeen di def nañ dem ci nit ñi seeti responsable yi ak militants yi daje yi ñuy def sax am na ci yoo xam ne naam baax na waaye gis nga politique dafa am aw yoon boo xëyee da ngay taal sa oto dugg ci dëkk bi quartier yu bari ma nga fay dem toog waxtaan ak nit ñi maire yi nga xam ne ñoo yor mbootaay yi xale yu góor yi jiite nekk ci association yeeg ba ci sax sëriñ daara yi doo bàyyi kenn kenn ku ci nekk nga waxtaan ak moom xam li nekk ci moom mais loolu amul lu may da ngay dem benn tàkkusaan rek def benn ndaje 5 minutes 10 minutes loolu doo ci xam dara dëgg yàlla loolu daal du liggéey bi nañ liggéey daal ci base bi man loolu lay digle. mu jàpp ne nag réewum Sénégal bëri na ay dëkk yoo xam ne Khadim Dieng mi nga xam ne sax dafay faral di yëngu ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllum social tàllal loxo njiitu réew mi président de la république Macky Sall ngir mu taxawu ñi nga xam ne ñoo nekkee ci yenn dëkk yi tey jànkonteel ak ay jafe